asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateur LCS la chaine sénégalaise dellusiwaat nañu ak yéen ci seen émission bu mag bile muy yeete ñu nuyu leen bu baax ziyaare leen balu leen xaq bal leen xaq ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dolle ñoo sëmbërtël ci géeju yërmandeem yi dolle ñu yiir itam balaa nu suturaam yi bi xurmati rasulillahi sallallahu alayhi wa euh, fa tabarakallahu joyal nuyoo ci soppe yi yépp yi nga xam ne euh, su waxtu wi jotee ñu ngi rek euh, toog ci seen kanamu écran ngir yàlla fas yéene ànd ak ñun ci seen njàng xuruful hijaiya yi muy lettre yi nga xam ne moom moo lay permettre pour nga mën a liir lépp loo gis ñu bind ko ci wàllu arab fa tabaarakallaahu ñi ci eh, ànd ak ñun ba léegi ñuy jot seeni mbégte ak seeni kontante eh, lu mel ni suñu soppe bale ca eh, cité biyaa gi moom daf ma naan maag sama borom kër ñu ngi nii toog ndeysaan loolu am na solo lool waaye ziyaar ci suñu soppe fa tabaarakallaahu Euh, di papay Fatimatu Bintu Kan macha allah euh, def ci lu am solo moom itam sant ko gërëm ko moom comme li mu ñaan rek nit kuy def lu baax moom walbatiku ñaan ne bu ñu sañoon rek mu nekk loo xam ne dañ koy def rek mu nekk sirran euh, sàkku ci ngërëm yàlla rek tabaarakallaahu ñu ñaanal ko yàlla yal na yàlla jàppale ko. yal na yàlla yokk suturaam bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yàlla barkeel njaboot yi fa tabaarakallaahu su ko defee rek mi ngoog xarf yi la ñuy jàng tey muy xarf sood mooy bi par exemple saar bi ñu nekk di tafsir muy suuratu sood mooy lettre bi mooy lettre sood su ko defee saad bokkul ak lettre siin bokkul ak lettre thaa benn bu ci nekk rek am na nuñ koy prononcé kii boo koy prononcé da ngay mel ni ku taq waaw sadd sadd mooy bu fekkee amul maas comme nii mu mel nii sadd lettre sadd sadd sadd dégg nga kii mooy lettre badd badd euh, dafay niroog daal daal mooy bi ñu jàngoon dall zall léegi boo boo boo maasalee rek daanaka kenn du xam bi ngay bëgg a wax il faut nga jàpp ni ñu koy prononcer kii lettres yi yëpp ñeent yi ngeen di seen ñii yëpp benn boo ci tudd rek da ngay mel ni ku ku dotom da mel ni ku taq waaw ku sa làmmiñ taq su boobaa ci nga koy gën a mën a euh, waxee dégg nga di euh, bu ko defee nag buñ ko maasee kii xarfu saad bi dañ koy maas ñaari fatxa dégg nga paap li ma leen waxoon rek man ma feeñ ci amul solo mbind mi jàkkaarloog mbokk yi ñu yor seeni i kaye di recopier tabaarakallaahu moo ñu ëppal solo foofu ñun suñu jëmu feeñ dégg nga ko léegi xarfu sadd booy gis ngeen ko mas nañ ko ñaari fatxa su ko defee son son lay nekk da ngay mel ni dangaa taq son dégg nga de parce que sadd buñ ko maasee ñaari maska fatxa muy fatxa tey ni son ngay wax buñ maasee kasra tey ni dégg de muy ñaari kasra dangay wax sin dégg nga da ngay wax sën buñ maasee ñaari damma nga wax sun gis nga ko xarfu saad ñaari fatxa asalaamu aleykum Fatimatu Bintu. Wa. Wa kay waaw kay kan kan no def. Nanti. Yang ci jam bu bax. Wa. Ba yang wor. Wa. waaw. <laughs> Kumba an sa papa. ah. Mane an sa papa. sa papa moy ni. Alhamdulillah, mang koy nuyu bu baax a baax a kan. ayca bismillah tafaddali son son d'accord sin sin sun mhm. xarf bi mooy xarf ban bu amul maas nii lu mu tudd dadd waaw dadd dadd mooy bu amagul maas amul dara legi buñu masé ñaari fatha jam ah dan dan ñu ngoog dan ñu mas ñaari kasra din din ñu mas ñaari damma dun dun aywa harf bi moy ban moy harf ta ñu ngoog ñu mas ñaari mas tan nyari kasra tin nyari damma tun harf bi mooy ban ah Za. aywa ñu maas Nyari fatha zan nyari kasra zin ñaari damma zun barakallahu fiik waaw sunu doom jooju le tabaarakallah ca parcelle wa tabaarakallahu di ku di doomu sunu soppe piir fa tabaarakallah yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla aar ko bi xurmati rasulillah ñu ngi kontaan ci moom bu baax kontaan ci wéy juróom bu baax fa tabaarakallaahu di ñaan yàlla yal na yàlla barkeel yal na ko yàlla sàmm yaakaaram wala yaakaari wéy juróom ci moom yal na yàlla tàbbil yépp barke alquraanul karim barke weeru tedd wile lii moom foog naa ne lu am solo la toujours ma wax ko encouragement bu am solo la Euh, wooteel sa njaboot fa tabaarakallaahu mu tari en direct ñépp di ko dégg loolu foog naa foor na lool salaamualeykum salaam sëriñ tur naka waaw Mama Lay aywa Mama waaw Mama Lay waaw koy lay na ngeen def allo ah xaj mama lëy jander mel na ni dàgg na ñu jéggalu ci bu baax xam naa ci yëf rek 88 628 17 27 mooy numéro bi 88 628 17 27 fa tabaarakallaahu ngeen mën a participer bu baax a baax a baax gis nga ko xarfu sodd dégg nga mooy nekk nii maanaam bu amul maas mooy sodd xarf bi mooy xarf dadd dégg nga yaa ngi doon wax daadun daadun waaw ñu ne la dadd pour mu woyof xarf bi mooy xarf too too da ngay mel ni danga ngaa dotom da ngaa mel ni ku taq too parce que boo nee taa dangay dem ca bële alif ba taa kon boobu mooy taa bii danga naan too mel ni ku taqal sa làmmiñ bii dangay wax zo moom itam lami bi day mel ni lu taq zo parce que boo nee za mën naa niroog zàll wala mën naa niroog zëy su boobaa danga naan zo waaw ñu mën koo ràññee ak yeneen yi des masal nañ la fatxatey nii comme ni ko soxna bintu tare son son buñ commencé kasratey ni sin buñ commencé ma tey ni sun muy son sin sun son sin sun son sin sun son sin sun حرف الضاد ñu mas ko ñaari masque fatha muy fatxatayni muy ban ban din kasratayni dun dammatayni dun ban din dun ban din دن حرف الطاء فتحتين طن طن كسرتين طن طن دمتيني طن طن طن طن طن طن طن حرف الظاء فتحتين ظن ظن كسرتين ظن ضمتين ظن ظن ظن ظن ظن ظن ظن صن صن صن بن بن ضن السلام عليكم allo. waaw. waaw kooku kan la. man. waaw. ah. allo. allo. waaw man la Amina. ah. man la Amina. ah Amina. waaw. Ah. بسم الله أمينة سال صن صن صن صن صن دال بن دال ها دال بن واو دن دل بن مه. دل دن مه. دل بن طن طن ظن ظن ظن ايوه زن ظن بارك الله فيك امينه الو تبارك الله نيو كونتان لول سخنا امينه فتبارك الله soxna Fatima Bintu soxna Amina lolu amna solo lolu way wallahi ndeysaan Sayyidatuna Amina moy way jur yonent bi soxna fatima Bintu di chatu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal yàlla jox len sen barke yi bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ma waxoon ne day leen tuddee seen doom yi tur yu rafet lu am solo la Euh, am doom bu jigéen tudde ko tur yooyu baax na torop amina fatima zeynab roqaya waaw yooyu tur yu tur yu am solo la fa tabaarakallaahu waaye ay ngisali <laughs> ah tabarkalla tabarkalla bu dee góor nga jël tur yu rafet waaw ahmad mahmud muhammad ibrahim moussa aywa yu am solo la tabaarakallah 88 628 17 27 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, waaw. kookan la. man la Ndeye Ka. Ndeye Fatou Ka. maa bëgg a bokk. ah. maa bëgg bokk. da bëgg bokk waay waay ka bismillah loolu rek laa sawar ku bokk rek laa bëgg ayca. son. son. sin. sin. صن بل بن جن ضن دن دن طن طن طن طن طن طن طن ظن زن زن زن بارك الله ها allo tabarakallah soxna amina ka fa tabarakallahu moom it ñu kontaan ci participation boobule asalaamualeykum waaleykum salam wa rahmatullah waaw ku baax kooku kan la man maa ngi tudd Ndey Kumba Bokande Ndey Kumba waaw yaa ngi wootee fan Liberté 5 Liberté 5 Liberté 1. Liberté 1. waaw. tabaarakallah da bëggoon tari. waaw dama bëggoon participer. ayca bismillah. Euh, san. son. Mhm. sin. sin. Mhm. sun. Mhm. dan. dan. din. ah. din din. din. dun. dun. tan. tan. tin. طن طن زن زن زن زن zun zun tabarakallahu fàttali ma tur bi ndey kumba bokkande ndey kumba bokkande waaw waaw kumba waay waaw kumba ndey kumba waaw kontaan nañ ci émission bi trop jërëjëf bokkande jërëjëf bu mu nee bu mu nee di continuer rek dina baax insha allahu taala dina continuer dina continuer insha allah bokkande insha allah ñu ngi bëgg waa Liberté 5 bu baax a baax a baax. nañ ko dégg nañ ko dégg. Liberté 1. Liberté 1 waaw. waaw kay waaw kay waaw kay maa ngi nuyu 1 2 3 4 ba 6. Euh, waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax wallaay bokkande kontaan nañu lool macha euh, allah jërëjëf jërëjëf maa ngi gën a barakallahu fiik incha allah. fa tabarakallahu gis nga euh, yëpp yu am solo la encouragement yu am solo la fa tabarakallahu dafa am solo parce que. toog di waxtaan ak nit ki dina xam baax na gaa am na solo waaye maam Cheikh Alxaaji Malik radiallahu taala anhu dafa waxoon ni njaboot boo ko bëggee yar il faut nga jàngal ko d'abord parce que ki nga jàngal yee ko ba mu ne jar soo wëlbatikuwaatee bëgg koo nelawal su boobaa du yomb parce que fekkoon na nga yee koo pare yeey nag li ci gën a am importance mooy nga jàngal ko ba mu dañ ci réer waaw loolu dafa am solo lool tabaarakallaahu euh, kon toog nii rek euh, yore téere baax na di def waxtaan ki seetaan itam encore dina déglu bu fa jógee dem na mais alkitaabatu yabqaa waaw mbind dafay reste day des su ko defee yaa ngi am possibilité mën na yor sa kay yor sa bic recopier leçon bi suivre niñ koy prononcer nga am lettre yi dana la dimbali ëllëg téere bu ñu la ubbil fa tabarakallahu wala livre arab boo ko tiimee mën caa xam dara loolu baax na di waaw baax na lool fa tabarakallahu su ko defee rek loolu la émission bi moom même bu koor gi jeexee ni leen ko waxee day continuer fa tabarakallahu tous les jours lundi ba vendredi ci kàttan yàlla ak mbaaxam euh, su ko defee mbokk mu baax itam jàpp na ci lool fa tabarakallahu te eh, bëggul sax ku ko ku ko ku ko feeñal <laughs> waaye mën naa bés dara feñi <laughs> su ko feñi sant ko bu baax gërëm ko dégg nga ay ci sadd lettre sadd ñu son sin sun lettre dadd muy dadun lettre bi dadd dan din dun dan bin dun xam nga euh, par exemple kii kii lettre dàll la xam nga kii lettre dàll la tey buñ ko maasoon tey bu ñu ko maasoon fatxate bi romb nañ ko jàngoon nañ ko mais bu ñu defee nii xam nga kii dan la dan gis nga ko kii dan la mais moog bii niñ koy prononcé ñoo bokkul bii da nga naan dan rek dan simplement dan bii da nga naan ban ban da ngay mel ni da nga taq ban bokkul ak dan parce que boo nee dan rek tey bu ñu la doon dicté imla tey ñu ne la bindal tey euh, ñi rek ne la bindal dan ci ku jàng day foog ne dan lañ ko sant parce que dan simple mais ki lay dicté bu la nee ban di nga xam ne bii la la wax loolu la jàpp ni ñu koy prononcé di jariñ waaw kii lettre sadd la sadd mooy son son noonu lañ koy prononcé parce que sinon biñ jàngoon démb kii lettre siin la gis nga ko lettre siin la tey buñ ko maasoon ñaari fatxa nii san la hmm? léegi nag boo fekkee da ngaa maasale ne san rek duñu mën a xam ban ngay wax mais bi boo nee san bi da nga naan son son moom moo lay xamal ne ñaari lettre yi du benn loolu la prononciation bi di jëriñ tabaarakallahu dégg kon son sin sun dan bin dun tan tin tun zan zin zun son sin sun dan din dun tan tin tun gis nga bii parce que kii lettre taa la lettre taa la tey buñ ko bindoon tey mas ko tan la gis nga ko nii tan la mais tan simple looloo ko wuutele ak bii bii danga naan tan bii nga ni tan waaw tan bii nga ni tan loolu tin tun zan zin zun xam nga ba tey kii fii tay lettre zall bi tay boñ ko buñ ko maasé comme niñ ko rombe ki zan la hmm? zan la bu dee bii itam razein bi zey moom tamit buñ ko maasé ñaari fatha zen la ba tey bokk ñu nu leen di nu leen di prononcé dégg nga kii zan la zan bi zen parce que da mel ni da ngay mel ni da ngay sëggal dangay sëggal li ngay wax zen ak zan mu tàlli du benn bi nga ni zon zon bi nga ni zan bi nga ni zen am na am na wuute tey lettre bi la ñuy bindee zeynabu zeynabu gis nga euh, ni la ñuy bindee zeynabu lettre bi mooy ñëw gis nga su ko defee nga mas kii leetr yaa la egsee guñ ci mais nga mas ko sukkuun mu nekk ay kii lettre nuun la egsee guñ ci eh, dégg nga nga mas ko fatxa mu nekk na kii lettre ba la passé nañ ko lettre baa ñu mas ko damma mu nekk bu waaw muy zeynabu dégg nga ze ay na bu zeynabu moo tax kii danga naan zën bu dee benn maska fatxa bi rek nga ni ze bii nga wax zan mu tàlli zan mu tàlli par exemple mel ni kuy wax zaal mel ni kuy wax zaal gis nga ko àll lettre bi egseeguñ ci lettre laam la waaye jàngoon nañ ko ci yi passé bu dee ci xarfu hijaaya bi alif ba ta ba yaa yegg si woon na tabaarakallaahu su ko defee rek tabaarakallah ñu bàyyi ci xel muy zaal za àll mooy zaal euh, mooy zan euh, kii day tàlli mën nga ni zaal voilà bokkul ak bii nga xam ne da naan zon moom mu mel ni danga takk comme ni nga ko waxee loolu moom mooy moom mooy njariñ li mbokk yi buñ ci mënee bàyyi xel rek dana baax incha allah euh, son sin sun son sin sun son sin sun dan din dun dan दिन दुन तन तिन तुन तन तिन तुन जन जिन जुन जन जिन जुन सुन सिन सुन दन दिन दुन दन दिन दुन तन तिन तुन तन तिन तुन जन जिन जुन जन जिन जुन सन सिन सुन bần bin bun tan, tin tun dẫn dính dùn dẫn dính dùn sần xín sun, sấn sin sun done Din. dun ban Din. dun Tan. tin tun tấn tín tun Zan. Zin. Zun. ظن ظن ظن صن صن صن صن صن صن دن ضن ضن طن طن طن زن زن زن زن زن زن تبارك الله ملني أه، ورنا من الير سو جوبل فتبارك الله ميلو ام سولو ا أه، أه، باب سار سو ديفه رك ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax mi ngoo googu mën ngeen ko recopier mu leer bu baax a baax noonu lañ koy prononcé fa tabarakallahu euh, su ko defee rek dañ leen di bañ a retenir lu yàgg ngir dem waajal ndogu yi xam naa sànq suma yaay ndey mbaw mi ngi <laughs> ci bëccëg ne oustaz mii dey ba demee koor gee ko jàpp waaye wax na dëgg nag tey moom euh, sant naa Juuf lool macha allah <laughs> yàlla yàlla barkeel bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li ñu fi jàng yëpp yal na ko yàlla barkeel maa ngi beral nuyoo ak ziar suma soppee suma sëriñ ndeke yàgg maa suivre lool fa tabarakallahu muy Seydi Ahmad bu suñu maam Seydi Jamil tabarakallahu bu faas tabarakallahu déggante nañu téléphone bi ñu paree ci émission bi ci bëccëg ndeke moom yàgg naa suivre émission bi lool lool lool lool ëttu daara ji yeete bi fa tabarakallahu loolu foor na ci ñun lool rëy na ci ñun lool itam euh, nekk ci mbir ba sa kilifa naw la ca yëkkati téléphone am woola ci biir émission doyul nga génn mu woola door émission loolu fa tabarakallahu rëy na trop ñu koy ziyaara bu baax muy Sayid Ahmada tabarakallah bu suñu maam Seydi Jamil bu Sëriñ Babacar Si bu Faas ñu kontaan bu baax a baax a baax ci loolu su ko defee rek xam naa ñu ngi ñuy signalé euh, waxtu yi moom daje woon naag fatabarakallaahu ñu doyal sa <laughs> yàlla yàlla barkeel ba suba ak jàmm allah ki nekkoon ci caméra bi di suñu mbokk Pape Sarr نوي سنو يا سونا سالا بو باخ باخ نوي موسى صوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجي سين بوك دارا استاذ نور جوفا نيكون تي تابلو بي ان شاء الله صبا اك وقت وي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى